Thank you.

na euh, présence ki nga xamante ni moom moo di Jean Michel niki fan yee ñu weesu fii ci réew Sénégal mu jur polémique le pourquoi ñu koy recevoir ci palais présidentiel bi lu ni mel tamit dinañ ci waxtaan ak suñu invité du jour mais également dinañ waxtaan ak moom am jàngatam ci li nga xamante ni moom la ñu weesu à savoir présidentiel bi ak it seen candidat bi di Amadou Ba tey jii lan moo fas ne nekk ëllëgam ak it ëllëgu li nga xamante ni moom moo di coalition benn bokk yaakaar lépp tey dina bokk ci ponk yaatal nag waxtaan bi dañ koy dalal jàmm nuyu ko bàyyi ko moom it mu nuyoog yéen maam maa ngi amati mbégte janawaat ak yow. waaw euh, di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoo. waaw Penda maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di nuyu tamit euh, waa Sénégal set di ci jiital sama frère Pape Ngagne Ndiaye. Mhm. mu nekk nit koo xam ni man nit ku ma naw la jàmbaar la liggéeykat la. donc man képp koo xam ni jàmbaar nga doon liggéeykat dama lay sopp. Mhm. donc nag moo tax. dina am nag ay journalistes yoo xam ne ñu ngi may seetaan dañu may xaw a mere tuuti parce que des fois ñu bëgg ma jot mu metti wala ñu bëgg ma invité voilà duñu comprendre. Hmm. voilà donc ñu xam ni rek.

daf ma mës a intéressé mhm. ndax en tan que artiste dama mës a nekk artiste boo xam ni mhm. li may communiqué sax moo ëpp li may woy voilà donc man communication daf ma neex moo tax mhm. ma investir am na solo en tout cas maa ngi leen di gis yéen nga amal temps liggéey bu am solo un peu partout également ci li nga xamante ni moo di espace médiatique bi que ce soit sur YouTube fu ma tourné maa ngi seen référence actu tous les matins également maa ngi gis seen dépêche donc lu ni mel dafa nekk ay jéego yu am solo yi nga xam teg ngeen ko euh, ginnaaw ba ñoo leen jiitu ci yoon bi également ñu leen ci félicité bu baax a baax donc maam. bi ma koy euh, teg nag Pape Ngagne nag na ma ci nag. non nit ku baax la dama ko bëgg a wax. Mm. bi may teg euh, référence ak actu moom laa ñëw waxtaanal. non ni ko baax ma defal nii defal nii defal nii. ni ko baax la nit ku yeewal nii su ma tolloo ci yenn ci yenn kii yi nii. Mhm. Euh, dama koy woo di ko ah Pape lii de lañ bëgg def lii la ma gars yi proposé loo ci xalaat mun ma defal lii defal lii. dëgg la donc je profite de cette euh, ci occasion bi. Mhm. pour remercier ko bu baax a baax pour ay employés xam ne nit ku généreux générosité du joxe xaalis générosité mooy nga jiitu nekk. nit ci nekk bu lëndëm mm. ni ko kaay toog fii pour bañ a fakastalu wala bu jaaxlee ci yoon nga ni ko ah jaaral nii boo fi jaaree doo fakastalu mm. donc Pape maa ngi koy remercier ci loolu di nga sama xarit <laughs> <laughs> donc maam euh, tey euh, bu ñuy waxtaan euh, ñu dooree ak li nga xamante ni moo di régime bu bees bi nga xamante ni si njiit ga di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamante ni ci élection présidentielle yi moom la sénégalais yi fal avec 54,28 pour cent des voix alors niki démb moo gouvernement bi nga xamante ni depuis lors ñoom ñu ngi conduire euh, le nouveau régime euh, annoncé ci également ay coppite yu yees gis nga également ay rapports yu ñu publier gis nga également euh, réédition des comptes gis nga lu bëri li nga xamante ne en tout cas prévoir nañ ko ci seen régime notamment également wàllu wàcce bu baax a baax cherté dund bi cherté loyer bi gën a mettre Sénégal yi ci condition yu meilleure loolu yëpp bokk ci seen bébét mais tey ji boo taxawee déjà ci un mois yi def ci régime bi ban jàngal nga ci voilà xam nga euh, ñoom dañu ñëw di door a démarrer donc am na lu bëri loo xam ni tey jii mënoo nit mënu ñëw rek commencer rek nga commencer di ko voilà critiquer yenn critiques yu mag yi di nga xool au moins euh, ñoom ci ban ligne lañ jël fan lañ jëm pour au moins nga mën a taxaw ni lii ak lii ak lii mais tey jii euh, lenn laa xam ni ci seen ñëw bi ñu ñëwee parce que man tey dama bokk ci Sénégal yi nga xam ne man wootalu ma leen. waxtalu ma leen dama doon bëgguma woon sax ñoom ñu ñëw au pouvoir parce que ni ñu doon wute réew mii xam nga ci fitna ci xeex yeeg yéen mais benn moment bi ñu demee ba nga xam ni peut-être euh, ñoom ak président Macky Sall li gars yi doon ruumanaat ci suuf ñu ñu ngi waxtaan wala genre mel noonu gis nañ ni Sonko bi mu génnee kaso génn na mu ne président Macky Sall ku baax la amuñook moom affaire suñu cible diw la. Mm-hmm. muy seen candidat bi nga xam moo nekkoon seen adversaire donc ñun taxawaay boobu lañ amoon mooy nga am sa leader. sopp ko gis li mu def ci réew mi ci wàllu infrastructure ak li mu liggéey lépp tey mu am benn koo xam ne yéen bokk jamono wala yenn a jamono mu ñëw taxaw di dal ci kawam nga taxaw taxawaayu défense défense défendre sa leader. ok mais bi mu génnee taxaw baaxal ko ba léegi ñun tamit posture boobu mu am ba baaxal ko ñun posture boobu la ñuy am noppi ci ay mbiram déet ñu ko wax yenn affaires yi moo tax ñu bëri déggatuñu yenn attaques yi ñu def ko parce que tamit euh, bàyyi na sunu leader bàyyi nañ ko. est-ce que beneen bi ci topp mooy ñoom dañu waxoon ni suñu ñëwee pouvoir yàgg nañ ko gis ci ay vidéo parce que basiru Diomaye fay la Sénégalais yi fal moom lañuy laaj ay compte bu demee ba pare mais dafa fal premier ministre muy Ousmane Sonko. Mm. Ousmane Sonko ci ay vidéo mi njëkk yi mu daan wax yëpp. dafa doon mm. wax ni ñoom bis bu ñu ñëwee ba accéder au pouvoir jël magistrature suprême bi. Mm. ñoom li nga xam ni mooy lépp luy post de direction boo xam ni tey Sénégal da koy am appel à la candidature la ñuy def. appel à la candidature mën nga ñëw fekk nit ci benn poste mhm. sax moom mu bokk ci ñi nga xam ni ay candidat lañ pour jël poste bi nga xam ni moom la yor mhm. donc nag tey à notre plus grande surprise démb ñu ci guddi ñu jekki-jekki tardivement ñu génne benn liste ay DG yoo xam ni wàcc nañ leen fal ñu mhm. bees comprendre la donc ça veut dire que ni appel à la bi ñu doon wax sénégalais yi donc dañu dem ba si biir xam ni peut-être njuumte la wala nekk na loo xam ni lu diis la parce que normalement su fekkee dañu fal ay DG dañu waroon nit ñi dañ leen di fal pour un temps déterminé pour intérim au moins pour ñu def appel à la candidature bi mais kenn xamul dañoo xëy rek ñu name seen i nit. ku ah, waxoon nañu également ni euh, dafa am ay post yi nga xamante ni foofee la ñuy xaar li nga xamante ni moo di appel à candidature bi mooy yan poste la mais postes yi clé yëpp joxe nañ ko di yan mooy postes yi poste clé yi fii tey ñaanuma ko yàlla réew bu dee am coup d'état lu ñu njëkk def aéroport bi aéroport bi ngay njëkk a tëj géej gi non dama lay yenn poste la mooy mooy yenn poste la amul xam nga dañuy waxtaan xam nga tey jii fii yeneen direction yëpp ay direction yu ndaw la direction yi fi ëpp importance benn lañ ci laal muy Senelec mais c'est mais est-ce que tamit lu ñu mel tamit euh, mënuñu parce que tamit ay postes stratégiques la yi nga xamante ni euh, tamit fa ñu teg fa seen nit président Macky Sall bu fi nekkee président Macky fi nekkee dafa jël les postes stratégiques teg fa teg fa ay nitam seen nit yooyu oui non xam nga ñoom dañuy rupture la ñu indi li président Macky Sall doon def xam nga yow man tey bien vrai que ni man Macky laa àndaloon yow xam nga loolu mais man am na ay ay ministre u Macky yu bëri ak ay DG yu bëri yoo xam ne nag ñoom juboo ñaa ñaata yoon laa toog fi ni leen ay traître lañ mm. wala ay lii lañ wala lii c'est que du loolu ñoom dafa am lu fi président Macky Sall defoon tàmmal ko Sénégalais yi ñoom ñu ñëw ni dañ koy dindi rupture la ñuy indi rupture mooy lépp lu fi nekkoon loo xam ne ñëpp jàpp nañ ni lii baaxul ñu dindi ko teg fi leneen ok man neew ma ñi mu fal amuñu compétence de waxuma loolu dama ni appel à la bi ñu jaay sénégalais yi ba sénégalais yu bëri tax ñoom ñu dem voté ji appel à la candidature boobu au moins su fekkee ni dem nañ ba jël ay nit nommé leen waroon nañ ko argumenté ni diw yóbbu nañ ko RTS Pape Alé lii moo tax ak lii maa ngi koy félicité de passage. justement xam nga noo xaar rek ma la. ku mel ni Pape Alé Niang ñu ne ñu ne ñu ne Fadilou Keita yóbbu nañ ko nu mu tudd. CDC maa ngi koy félicité keneen ak keneen noonu parce que man après dinaa la wax ñoom lu tax kenn ku nekk lu tax ma félicité la ci poste bi ñu la yóbbu mais bala ñu koy def ñoom waroon nañ ko. argumenté ni diw yóbbu nañ ko fii lii ak lii ak lii moo tax parce que tey jii boo demee fu mel ni APIX kañ fa teg fa la nekkoon donc kooku xam na APIX fa la doon liggéeyee kooku bu ñëwee mën na continuer rek dem parce que fa la nekkoon est-ce la tey boo demee CDC ku mel ni euh, Fadilou Keita CDC yàgg na fa nekkoon na fa subir na ay affaires yoo xam ni moom dafa amoon droit am fu mu far farak Euh, nu mu tudd Ousmane Sonko am ay problème ñu tëj ko ko sax mais boo xoolee ni mu demee nii dafay mel ni dañuy récompenser ñi nga xam ne ñoo porté woon yenn combat yi mais ci biir tamit mun nga jàpp ni kenn ku nekk fañ la teg xam nga am nga fa ay notion quoi mooy peut-être ñooñu nekkoon nañ foofu di fa liggéey mais man li may dénoncer mooy xam nga lan mooy le fait que ñu ne sénégalais yi ñoom ab ñoom appel à la candidature la ñuy def mm-hmm. xëy suba teel nommer seeni nit te argumenté wuñu ko man loolu laay wax. d' accord kon daal yow euh, da nga bëggoon maanaam démb nomination yi nga xamante ni euh, jib na ci conseil des ministres bi ñu argumenté ko. mais pourquoi pourquoi nga war a bëgg lool parce que bu ñu jëlee par exemple exemple ku mel ni Pape Alé Niang ñu en tant que journaliste tey ñu def ko njiital RTS 1 loolu est ce que jar na argumenté. parce que dañ ko jox mais dama lay xam nga Pape loolee la jàng tey loolee la loolee la xam. il a porté un combat pendant longtemps. ñu koy jàpp fii. comme moom laa lay wax. Ah moom dafa porter combat les patriotes ak Pastef ak euh, euh, euh, Ousmane Sonko di ko jàppale tey man man maam góor suñu tegoon fukki nit nii teg Pape Alé mën naa ko tànn parce que nit la koo xam ne man xam naa ko te am na fulla est-ce que comprendre te tamit au moins moom am na audace xam la mooy audace hmm. mooy ma far fenn wane ni fii laa far xam nga àddina bi lan moo bon xam nga ñoom ñu man waa Pastef lan laa leen di critiquer chaque jour pensée unique kenn ku nekk ñoom pour ñoom ñëpp dañu war a ñëw far ak ñoom non yàlla sax ñëpp far ak ñoom am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla. mais Pape Alé musul affirmer mais Pape Alé dafa far ak Pastef. non non non non li mu mus soutenir moo di dafay xeex li nga xamante ni moom moo dama ni comme ni mu ko yàggee xeexal ñeneen dama ni moom ni mu jàppe ni ñii injustice la ñuy subir am na ñoo xam dañ jàpp ni ñale tamit ñu ngi teg nit ñi injustice parce que soo génnee taxaw naa nit ñi génn leen toj génn leen xeex génn leen def li un président de la république nga ni on va le traîner on va le faire comme Samuel Doe wax yenn ay gatsa gatsa utiliser yenn mots ba nga xam ni moom mooy influencer yenn yi nit ñi di génn duñu am fu ñu jaar problème di am ak yooyu loolu nit ku nekk am nga droit far fu la neex mais far fu la neex xam nga la moo bon nga jël nit def ko noonu ba mu jaral la mu dee est la ba gis mais tey buñ ko falee foofu. man liñ ko fal am na ci ay notion am na lu ma ci xam c'est un journaliste. te tey nag kaay ma wax la benn affaire képp ku ñu jox post suñu la encadré jàppale la mun nga dem. Mhm. est-ce que comprendre la. parce que ku ñu mënul jàppale ay ku ñu mënul jàppale. encadre la ci réew mi amul parce que un président de la république sax day am ay conseil ci lépp. wàllu sport wàllu tourisme wàllu culture wàllu lii wàllu lii xam nga lu wax donc ça veut dire que ni ñoom bu ñu leen joxee. poste yooyu normalement bu ñu amee ay techniciens am ay conseils yu baax mën nañ ci génn lenn rek laa xam ni tey jii lenn rek laa xam ni tey war na ci taxaw mooy tey jii dañ ni RTS peut-être am na discrimination bu fa amoon am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen au frigo mooy yi fa am rek mooy ci journalistes yi ñuy ñëw déposer ay ay du ñu leen jël wala ñu di favoriser favoritisme peut-être bi ñu doon coow foofu moom comme yàgg na toog ci presse bi di kaas ñëpp xam ni taxawaayu révolutionnaire la taxaw donc su ñëwee mu corriger lépp bu mu xool ni ñii président Macky Sall lañ faraloon wala APR lañ bokkoon non dama leen di yóbbu au frigo Sénégalais yëpp benn lañ parce que président Diomaye tey man encore une fois dama koy wax toujours wotelu ma ko faralu ma ko jàppale ma ko su ma sañoon sax du nekk président mais nekk na ko mënuma ci dara c'est le président de tous les Sénégalais donc mënuma lu dul yéene ko jàmm parce que bu doxul moom bu doxlewul Sénégal mooy toog. mais ndax am nga yaakaar en définitive. non non dama xaar ma yëg mën bu baax a baax bi am foofu ci RTS non mais am naa ci yaakaar su fekkee ni tey jii moom li li nga xam ni moom la euh, euh, nu mu tudd personnel bi fa nekkoon doon dund tey jii bu ñëwee li mu war a njëkk a def moom mooy dajale ñëpp comme ni Diomaye def bi mu jekkee président moom nee na man ñi ma tooñ baal naa leen ñi nga xam ne man maa leen tooñ baal naa leen ñi ma tooñagul sax maa leen di baale bu ñëwee indi. esprit woo ñëpp dajale ñëpp xamal ni moom njaboot lañ ko dénk. Mm. njaboot gi nag am na ñoo xam ni fee lañ far am ba boo xoolee tey jii ci gouvernement bii nii ñaata nit nga gis ñu faroon ci Ousmane Sonko di liggéey ci administration bi wane seen bopp wane ni fii lañ far mais malgré tout ça dañ fa nekk ba tey seen seen seen seen seen seen leader nekk président de la république ñu jox de responsabilité donc Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk donc nag tey bu ñëwee dajale njaboot gépp waxtaan ak ñoom bu mu xool ni kii fii la far kee fee la far parce que gis naa ay sénégalais yoo xam ni dañuy taxaw naan noo di wax nit ci vie privée nit ku nekk am nga looy dund loo xam ne boo sañoon benn sénégal du ko xam. d'accord beneen beneen nomination aussi muy général euh, Martin fay bi nga xamante ni tey jii moom moo remplacé le général.